ay kàddu yu am am solo yu ñu bëggoon a teewlu ba ñu noppee daal di dellusiwaat suñu àpp jàngat. waaw dem meeting bi kenn gisu la nu fa demee noonu ah bro c'est que man kat lii dama kaa xamatul saa yi fii la taxawoon mu ne bis bu ñu ko faree day change système bi te instant yi waa système bi rek ko wër moo tax man tamit mu téye samay tànk. ah d'accord que loolu dafa commencé raar mais foo jëm nii football ji dama laa niroo kuy football bi gis naa sama ñampe dama dem sang ji xar. c' est tout tout tout booy kong booy

xam nga coach bi ba mu ñëwee li mu njëkk a def moom mooy dafa changé système de jeu bi jëlee ñu 4-4-2 indi 4-3-3 ba yenn joueurs yi nga xam ne compatible ñu ak système bi mu jël leen mu daax leen waaw loolu loolu la quoi mais sinon majeure partie des joueurs da leen a conservé ba ñu am ñàkkuñ ay joueurs yu baax de. voilà nag lii rek laa la bëggoon expliquer gis nga système du nit système méthode de fonctionnement la gis ngeen da ngeen jugee 4-4-2 dem 4-3-3 ngeen ne adopté nañ si par rapport ak. seen système bi ngeen garder leen ñi nga xam ne adapté wuñ ngeen génne leen Sonko tamit bu wax bu wax changé système bi foofu lay waxee maanaam ñi nga xam ne ñoo ngi doxal réew mi bu baax am nañ njëriñ ci réew mi dañ leen di garder ñi nga xam ne amuñ benn njëriñ réew mi ñooñu dañ ni di changé xam nga tey bu ñu wax système administration la enseignement la justice la euh, santé la ak leneen ak leneen mais Sonko bu ñu wax système waxul nit xanaa kon Sonko si boppam c'est un pur produit du système parce que tey Sonko système éducatif Sénégal gii ci la jàngee. Sonko système administratif Sénégal gi fu la liggéeyee pendant 15 ans donc Sonko est un pur produit du système sauf que nag comme ma ko waxee système dafa am lu baax ak lu bon Sonko li bon ci système bi lay fas yéene changé tey Sonko du ñëw ne day dàq enseignant yëpp parce que enseignant yi ci système lañu bokk déedéet du ñëw ne day dàq médecin yëpp parce que médecin yi ci système lañ bokk dëgg loolu dëgg. dëgg la kay dëgg la de man mii maa nekkoon ci erreur ne nit ñi ñooy système bi. AGT News. ñoo ko déggandoo lan moo di système. système dafa nekk loo xam ni c'est complexe ay mbir yu bëri ñoom ñoo duggante waaye nag ay nit ñoom ñoo koy daal di exercer waaye système boobule dafa am nuñ koy structurer waaye ci structuration bi dafa laaj ay nit yu qualifié laaj ay borom xam-xam laaj ñoo xam ni dañoo xam administration en général naka lañ koy dal di doxalee. waaye itam laaj na ay nit ñu dëggu ñu nangoo liggéey ñu am éthique ak déontologie suñu Sénégal fii la ñu toll tey. koo wax mu ne la système bi baaxul Ousmane Sonko initié na lu ni mel mu ne wàllum système bi fii ci Sénégal dañ ko war a changer dañ ko war a soppi ñu bëri déggee ci ne dañoo war a jël lépp loo xam ni daf fee nekkoon daal di ciy def la ñuy woowee nihilisme. loolee lépp dara baaxu ci dañ koy jël tegee ko ak côté alors que demeewul noonu. dañoo war a def li nga xam ni moo di saytuwaat suñu ab système boo déggee système nag dafay tàmbalee ca institution ya wàcc ba fi nga xam ni mooy liggéey bi gën a ndaw ci suñu am réew boo déggee institution yi mooy ci président de la république ni muy gouverner boo déggee institution yi mooy justice assemblée nationale HCCT CSE ak mbooleem xeetu institution publique boo xam ne rek dañ fay dal di liggéeyee foofee naka lañ war a jëflantee ci seen biir naka lañ war a jëflantee ak population bi ak itam naka lañu war a doxalee seen ab liggéey. tey da ngay dégg ñu naan indépendance de la justice amuñu ko maanaam pouvoir exécutif législatif ak judiciaire ñoom ñett dañoo nekk pouvoir yi nga xam ni moom mooy dal di wëyal suñu ab système fii ci Sénégal. pouvoir yooyu président de la république ak gouvernement am assemblée nationale la avec les députés ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee waa justice conseil constitutionnel ak ña ca biir ñëpp ba ca cour suprême cour des comptes cour d'appel cour de cassation cour suprême mboolem xeetu cour yi daal nga xam ne mu ngi ci biir justice ak les tribunaux ñoom ñooñee ñooy former li ñuy woowee le pouvoir judiciaire. léegi nag li tax ku ci nekk sa liggéey nga war koo def ci ni mu waree loolu niñ ko tëralee ak niñ koy doxalee moom la ñuy woowee le système am duggalante ak génnalante boo xam ni dafa am ci institution bu nekk nañu ko tëggee nag moo tax Ousmane Sonko nii lu jëm ci wàllum système bi au Sénégal dafa am problème ndax war nañ koo mën a defee noo xam ni ku ci nekk da ngay def sa liggéey ca na mu waree te kenn du la teg pression kenn itam du la daal di menacer kenn itam du la daal di dicter li nga xam ni moom moo di sab liggéey day am ay structure yoo xam ni teg nañ ko en place yow bu fekkente ne wàcc nga yoon ñu tegaat la ci yoon de telle sorte que doo am lenn loo xam ne ni ko yàqal sam réew bi di Sénégal système bi itam boo ko déggee dangay xam ni dugg na ci domaine yëpp mi ngi ci éducation mi ngi ci santé ci environnement agriculture élevage pêche artisana tourisme maanaam bépp secteur daal boo mënti dugg rek système bi ni muy doxee rek noone lay daal di évoluer te itam système boobu ni muy doxee moom mooy yëkkati wala muy wàccee lu jëm suñu wàllum économie. tey da ngay seetlu yenn dëkk yu bëri ci àdduna bi développement bi ñu am lenn kese ko waral système boo xam ni. seen yoon nekkul ci président de la république wala député wala keneen yow dañuy jàpp ne ab institution ngay incarné institution boobu noonu dafa am des droits de devoirs am des limites itam limite yooyu bu koy jéggi rek am na lenn ci système bi luy taxaw delloowaat ko place am ne ko hé fii waroo fee yegg si fii moo di say limite waaye tey xoolal Sénégal nekkal président de la république am nga prérogative yépp lu la neex def lu la neex wax da ngay buum di buum mi te du am benn magistrat sax bu taxaw ne la monsieur le président L'État n'appartient à personne sinon au peuple qui en délègue des responsabilités, non à un maître mais à un serviteur comme ni ko Kéba mbay waxee woon le président Abdou Diouf amu fi dan moo ko waral c'est parce que suñu système bi ni muy doxee moo jaarul yoon exemple bi ñuy jël lu jëm ci wàllum justice ak le pouvoir exécutif xoolal ñaar yooyu noonu tey jii Sénégal ñëpp a ngi jooy naan dañoo am li nga xam ni moom moo di ñàkk indépendance ci suñu ab justice maanaam magistrat yi fi nekk ñu ci bëri dañ leen di dicter li ñuy def ñu bëri ñu ngi koy kaas surtout ñi nga xam ne ñoo féetu ci opposition bi ne dafa am justice su kumba am ndey ak kumba amul ndey te ñu bari nag am na ay exemples yu ñu ci mën a cité comme benn rek li mi nga xam ne dañ ko jàppoon ak ay faux billets koy libéré waat bëri ci ñeneen itam ñoo xam ne jàpp nañ leen te lañ leen jàppee li li def moo ko gën a garaaw fuuf ndax loolu nekku leen dul blanchiment d'argent alors que ñenn ñi ci ay kàddu kese yu ñu génnee lañ leen jàppee comme ku ci mel nii Fadilou Keita moom mi doon laaj naan est-ce que faatuñu ab frère am te boobu ci ay hypothèse kese la ko daal di tekk nekkul ay affirmation ay Ahmed Suzanne Camara taxaw di affirmer que ni Didier Badji ak Fulbert Sambou lañ leen a faat carrément te ba tey jii amul benn suivi boo xam ni daal dina koy am loolu ay exemple dong la woon waaye pour ñu mën a dem ci ab justice boo xam ne dafay libre justice boo xam ne day def ab liggéeyam ca na mu waree il faut que Souleymane Téliko li mu waxoon mu daal di ñëwaat moom daf doon wax naan justice bi pour ñu am seen indépendance il faut que seen ay promotion ak ni nga xam ne noonu lañ ko tëggee ñu daal di koy soppi ndax kat bu dee président de la république moom mooy nommé ñi nekk conseil constitutionnel bu dee président de la république moom am na benn mainmise ci biir li nga xam ne moo di justice bi ba tey jii oppression bi daf fay des ba tey jii seen indépendance dafay manqué ba tey jii moom président de la république dafay am benn kaddu boo xam ni da koy am ci ñoom loolu nag il faut ñu soppi ko système boobu noonu moom mooy dema dema dem ba dugg ci wàllum santé mooy dema dema dem ba dugg ci wàllum éducation mooy dugg ci bépp secteur rek boo xam ni sénégal yi ñu ngi fay yëngatu waaye nag pour mu soppeeku il faut ñu am comme ni ko sawaay waxee benn coaching boo xam ne dafay bees coaching bi du nekk leen lu dul jéem a xool secteur bu ci nekk ci lan lañ ko war a daal di mën a dooleelee ngir moom ab liggéeyam mu mën koo def ca na mu waree te du dépendre ci kenn kenn itam du ko influencer ci lenn loole mooy li war a mën a tax ñun ñu dem vers un développement waaye développement bu endogène d'abord avant muy exogène boo déggee loolu mooy dafay tàmbalee ci ñun ba noppi balaa ñuy dem di wàlliyaani feneen loolu nag pour ce faire il faut que ñu am benn leader bu charismatique am koo xam ne day gëm boppam dëggal boppam itam ndax nag bu ñu fàtte ne influence extérieure yi dañuy daal di dugg si comme lu ci mel ni France ak yeneen dëkk yi nga xam ne dañuy bëgg am benn intérêt bi ci Sénégal sañoon système bi ni doxee da koy continuer mu ñoom mën di nga xam ne moom moo di seen ay ressources ak yeneen ay intérêt yu ñu fi jëlee daal di yóbbu seen ay réew loolu nag pour mu am il faut ñu am képp koo xam ne rek da ngay ñëw ci suñu am réew mi bëgg fee am dara fekk na ñun amal nañ sénégalais yi ba noppi doog a jël leneen di ko doog a jiggaani feneen loolu moom mooy mbir mi système bi nag ni mu tëddee nekk na lu yaatoo yaatu bëri na ci ay experts yoo xam ne bind nañ ci wax nañ ci xoolal exemple suñu système éducatif xoolal enseignement bi nga xam ni yàqu na yàqu goo xam ne kenn xamul lu mu doon bëri ay mbir yu ñuy jàngal xale yi amulu leen njëriñ amulu leen sens ñu leen koy jàngal tout simplement parce que ab programme bu tegu la programme boo xam ni ñi jàngoon depuis des années boo école yi moom nga fay fekkaat gars yi di ñu am ci itam école sénégalaise boo xam ne dafa archaïque duggal ci école yi da nga fay fekk ay abri provisoire duggal ci école yi éponge duggal ci biir siwo ndox weñ effacé tableau ba tey fa nga koy fekk duggal ci école yi craie boo xam ne day génnee poussière ba tey fa nga koy fekk alors que daal di évoluer duggal ci l'école yi da ngay fekk sax yenn enseignants yoo xam ne dañuy am benn problème ci lu jëm ci wàllu matériel wala ay manuel duggal ci l'école yi ñuy jàngal gune par exemple histoire Chine Chine googu nga koy jàngal histoire am su demee Google fekk ka fa est-ce que doo ko orienté mu jëm ci li nga xam ne moo ko gën a mën a amal njëriñ vers le professionnalisme vers li nga xam ne yow da ngay teg benn système d'industrialisation de développement numérique et autres bu ko defee ngay orienté say gone ci loolu nga xam ne ay techniciens yu qualifiés nag leer na leen ñi ay surdoué ay borom xam-xam lañ nga yóbbu leen ñu nekk ji ay ingénieur nekk ji ay expert nekk ji ay savant bu ko defee ñoom ñu ñëwaat jëriñ seenam réew lii mooy système bi te bu fekkente nag juguñu ci ëllëg ñu am benn résultat bu baax boo xam ne dañ koy am ci suñu réew dañuy continuer statique fi ñu taxaw nii duñ fi jóge ma ko wax wax wax wax rek dañuy nekkee séminaire sur séminaire réunion sur réunion waaye dara du baax dara du avancé dara duñ ko am ci li nga xam ni moom moo di coppite ci ni ñuy doxalee ak itam avancement par rapport suñu économie économie avancement itam par rapport ak yeneen réew yi nga xam ne ñoom la ñuy joganteel lii mooy suñu Sénégal nañ ci jug taxaw ci ngir ñu daal di mën a dem vers un développement buy jëriñ ñëpp suñ ko deful rek dinañ tardé te dinañ bokk ci réew yi nga xam ne itam d'ici cinquante ans ou cent ans fi ñu taxawoon dong fa la ñuy daal di des. AGT News.